Mbappé la ñu koy doore moom mi nga xam ni moo nekk ci record yéenekaay nga xam ni euh, mook Sadio Mané ñoo taxaw jonn nga xam ni euh, ci diggante euh, Sadio Mané mi nga xam ni moo war a yëkkeeku ca la nga xam ni mooy finaalu Ligue des Champions Mbappé moom dafa si yokk contrant am nga xam ni moo nekk équipe ba ñu naan Paris saint mu nekk équipe boo xam ni boo amul chance yokku gam ko yokku yeneen wax la yokk waaye xaalis wala alalu àdduna génn ci boobu contrat boobu nga xam ni Mbappé teg na ko ci taabal bi reef boo xam ne Mbappé mi ngi am mooy diem wala euh, pare am rêve boobu maanaam gént goo xam ni euh, ña ngi koy am ci diggante Sadio maane jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy Mbappé ca attaque Paris Saint-Germain boo ko defee Ligue des Champions ba ni wër ñu mën koo lijjanti ndànk daal koy teg ci loxob gone yi nga xam ne ñooy xong nopp ya ca tubaab ya rastamaan bi wala sama rastamaan bi ñëw na euh, ci défense ki nga xam ne mooy Alioune Cissé mi nga xam ne défense ba moom la mu cay ragal bari na défense boo xam ne daanaka tasaaroo la gën a jege bii yëm yi jël bari na lool waaye attaque ba moom Euh, day doxal bu baax a baax bene ak euh, Rwanda mi nga xam ni tamit euh, ñoom gone sénégalais yi war na noo laale ñoom ak Real Madrid mi nga xam ne ciblé na Sadio Mané fi mu toll nii ginnaaw ba carte ga tasaaroo tas tasaar fële nga xam ni moo nekk ca Mbappé ak ki nga xam ne mooy réew mi sport nga xam ne la mu ñëw ci ay kàddu moom it kàddu yoo xam ne euh, Bernard Mendy mi nga xam ne euh, nee nañ Pelé danañ ko coupable Sadio Mané téeméeri bi yoo xam ne yëkki na ko euh, ca championnat Angleterre ak fukk ak benn 23e meilleur buteur boo xam ne ba championnat Angleterre sosoo ba léegi doomu Mbambale bi dugg na ci histoire histoire boobu day continuer moom saison ba nga xam ne gars yaa ngi koy waaye bu amul chance Liverpool ko bàyyi mu dem ak Boy Niang mi nga xam ne lu mu bëgg euh, ci digganteem ak Balla Gaye bés bu jàkkaarloog moom nga xam ne doomu Double Less bi taxaw na temm pour euh, conquérir ki nga xam ne mooy euh, Boy Niang mi nga xam ne rak rakkaatam lay doon waaye loola amul ci làmb doole ak entrainement moo fay feeñ te moo fay dox ak ki nga xam ni moo nekk Gris Bordeaux mi nga xam ne dëgg-dëgg